danoo ñëw ndax diir bu gàtt lu toll ci weer ñi ngi liggéey ci dëkk bi ñun ñi nga xam ne danoo ànd ak président Macky Sall mu doon ñu doon liggéey liggéey bu rëy ci dëkk bi loolu nag yàlla mi dogal dogal na bi nga xamee ne saytu nañ ko gëstu nañ ko ban dem ba nga xam ne ñun juróomi nit waxtaan nañ ci ba dëkk bi dañ koy xaaj ñaa eh, eh, lu toll ci fukki xaaj ñu ne ma xaayare gii Euh, ak euh, ndindi gale ñu teg ko ci suñu loxo ñu koy saytu ci wàllu politique bi jàppale président Macky Sall kenn kilifa gu la ëpp amuñu ko kon tey moo tax ñu wax ne bala ñuy dox benn jéego wala ñu yëkkati sum kàddu ci dëkk bi ñu koy dégg ci lenn ci lenn ci lenn jëmale ko ci dëkk bi wala xaayra dana ñëw ba toog ci sa kanam gën laa dénkaat suñu bopp waaye nag dénkaane bi taseeg ki nga xam ne tamati moom la ñuy wàññi ko di ko jàppale ñëpp xam sa diggante ak moom muy président Macky ndax bokk nga ci ñi nga xam ne ci dëkk bi ah démb avant tey di soog a ñëw ñi ko gën a taxaw ci dëkk bi bokk nga ca kon nag sëriñ bi lii ñuy dem di doxi ak di ko jëfi dara génnu la ci ndax la tax muy ñun ñi nga xam ne ñoo dëkk xaayara ci amuñu lu dul xaayara waaye moom moomee ñu koy doxalit ñëpp xam nañ seen diggante ak moom ñi ngi gën a tàllalaat suñuy loxo di ñaan bis bu demee ba ca bisu élection bi dana 24 ah Touba gi ñu gañe ko waaye buñ gañee Touba it xayri gi nga xam ne ñu lu dul moom mu bokk ci ña ña jiitu ca ngañaay loolu daal leen sàkku ci bisu tey nga ñaanal ñu ci bala ñuy yëkkati ay tànk di jëm ci leneen sëriñ bi mu ngi lay delloo nuyoo bi mu ngi lay dool delloo siyaar bi yaag mbooloo mi nga àndal te yaakaar naa lépp génnul kër gi lépp génnul njaboot gi sëriñ bi mu ngi leen di dalal fii ci seen kër yaakaar naa ku nekk xam na ne fii sa kër la xam ngeen ko sëñ bi xam ngeen sëñ bi xam na ko kon fii amuleen amuleen fu ngeen yem fu waay yem rek kon moo fi yemal boppam waaye moom fii seen kër la te kenn ku nekk am nga féete te ku nekk xam na ne moom yow moom sa féete mooy xaaxira sëñ bi mi ngi leen di dalal di leen massa coono ci liggéey bi ngeen nekk ku nekk xam na nekkul yomb ndax ndax ñu ngi ci ay waajtaay pour tànn ñu nga xam ne mu ñooñu ñooñu yëlifal suñu réew di ñaan yàlla suñu borom li ngeen ci bëgg na ko bëggee suñu borom dafa leen ci jàmm soo gisee ma jël micro bi daa am rek lu may seede ci moom mi ci wàllu liggéey bi ñu liggéey ndax moom mi dafa am ndigal ci liggéey bi ñuy liggéey boo xam ne sa ko joxoon ci mu dajal xayra def xayra muy benn bopp loola moom mi mu jël xayra ci ndigal ci ndigalal ki nga xam yàlla dogal moo ne ci boppam di ndigal Cheikh Moussa Fadilou da wax woo ñu ñun ñii ba ñëw matoon nañ juróom-ñetti nit mu ne mu ne mu day Cheikh Moussa Fall ko waxoon Euh, da ko ba mu ñëw lool sax xam naa ne dana ci àggal boppam waaye dama ci mos mu xamal ko ne ko mu sëñ Moussa Bassirou dey dajale na xaayira dajale na daaru minam damaa bëggoon nga dajal ma xaayira kere ba mu ñu woowee wax ñu ko fii jàpp naa su ma juumul lu mat juróom benn junni daan te dajale ñu ko fa i bëggee fi ne juróom-ñetti ñetti fan ñu ne fa liggéey dajale xaay dajale xaayir gépp ba mu nekk benn bopp loolee sëñ Mourtala def na ko te dara warulu ko may bëgg ak Cheikh Moussa ak ndigalam ndax daf ko woo soxna a soxna Awa Gadiaga jox ko moom bi eh, ndigal la mu def ko kon kooku suñu ñëwee ci moom di ko wax lu defar xayra jàpp naa ne dañuy dañuy dundal baatu Cheikh Moussa Fadilou kon ñun day suñ xel gën naa dalaat bi yàlla dogalee yàlla dimbale ba bañ séddale bañ séddalee Touba ay zone buutal xayra sonu boppam kenn ku na lu mu masaa song dana daanu kon kon quartier bii ne incha allahu na na ci seen safali bëggoon rek daa ko ci defe rek noonu rek lañ bëgg sëñ mu demee noonu lépp lu may dugg guddi ak bëccëg bokk na ci ñama ci ñëw di tàggu kon nag day baax yéen ñi ma àndalit su ma ñëwee fii kàddu yooyu mënu ma koo ñàkk bañ a seede eh, wax ci sëñ Modou ci kanam it jëru sax ma cay sori ndax xam na lépp ndax bu mu nee sëñ Modou ma léppal nag lépp dugg na ci biir kon ñu bañ a su gàdd guddal wax ji eh, bañ koo soril ci xam ne it mm. kin toog ci kanamu moom mm. xam na lépp mm. kenn ku ci ne ci ñun xam na ni demeek demee ak sëñ Mourou kenn ku ci ne ci ñun xam na ni mu demee moom kon Mbàkke nii rek lay gàttalee di ñaan nga ñaanal ñu lii ñu tàmbalee ci bismillahi rahmaani rahim ñu eggale kook alhamdulilahi rabbil alamin ñu am ci ndam ci barke Cheikh Mamadou Moussa Fall jërëjëf Mbàkke jërëjëf jërëjëf sax mm-hmm. du du gudd moom mm-hmm. ndax lii tax mu gàtt mooy mm-hmm. yow soo waxee man nga waxal ndax sama rakk nga noo bokk waajur bokk maam bokk waajur xaare gii nag moom bañ bañ koy fàkk fi ma fekk lu ma fi xamul kenn xamul génn ci kenn kenn ci àddina ndax ku fi ñëw rek ku dëkk xaare gii de fii nu toll nii man fi nga ma fekk ka fi njëkk a juddoo. Mhm. man la ko sëñ Modou tudde mhm. muy Mourtala Sall mi mhm. li ma ciy cof ci mbirum sëñ bi. keroog ba ma koy sant. sëñ Baara Samb moom la fekk ma toogal fii. mu yónnee woolu ma ngañ xumma. ma ne mu ne man noo def ci politique bi. ma ne ko ah, man di dugg dugguma ci. ndax ñaar fukki at a ngi nii yoo xam ne bu ñu koy def saam. bis bu ñu koy wootee sax du ma du fay yenn. mu ne ma ah dugg ci. ndax man politique ma am na lu ma doon def nag waaye mënatuma ko ndax mag laa mm-hmm. damaa bëgg na nga féete ma ci yow mi mm-hmm. politigu ma nag mm-hmm. digleeg tere laay def su ma gisee loo xam ne baax na ci mbooloo mi samay njaboot ma diggal leen ko su ma gisee lu leen di ma tele tere leen loolu nag duma ko mos a bàyyi mukk keroog Moussa ba ngeen di dem kaw la bi mu wootee am na Touba 36 mille personnes yàlla def na nag ndigal la laa wéttali ko woon mm-hmm. waaye mosumaa génn sama kër wuti kenn mosumaa dem ci kër kenn te bi ma defee recensement xaayira gi mm-hmm. li ma jox trente cinq mille personnes mm-hmm. te boobu ëpp na fukki at ndindi dix mille te lépp ñëpp njabootu Sëñ Fallu la waaye ñoom dañ ko ci gën a jege ah may wax nag la ma daan wax rek kenn mënul dara waaye yéen yéen ñi nga xam ne yéene waaye xaayira yéen ñi ndaw ñi ak yéen ñi jëm ci ak mag bu leen xeeb kenn bu leen romb kenn ndax ku ne rek am na lu man mhm. ma kon nag soxlaal ñëpp mhm. loolu mooy mooy li am solo ah yéen yéen ñi nga xam ne yéenay ndaw yi itam moom mii bu toogoon fi Sëriñ Tuubaa di ko taral ndax sëriñ bi moom ku ne lam la jox mhm. soo ko defaree balaa sëñ bi ñëw loolaa lay taral waaw man nag damay faral di wax ne nag yéen ñi ndaw nag xam nga ndaw nag nu muy def dafa am ko mos a jàppanteel ci gouvernement bu Diouf ab ministre la ba ma demee toog moom ne ko am na loo ma yàqal de waaye man de nit laa koo xam ne damaa fas yéene ku ma songool soo soo ma dóoree su ëllëgee soo ne dóor naa nguur sa soo xoolee sa loxo ne màttoon na màttoon na ma fi waaw <laughs> ah, liggéey baa ngi nii daanaa la wax ne loo gis mu baax ci loxoy ndaw ma nga ko defar teg ko ci bu na saxut du rot te bu rotut mu jëriñoo bu na saxee nag mu rot mu ñàkk wasalaamaaleykum mënoo dem ba fàtte këla léppal kon moom mooma ma léppal ci sama àdduna ba tax na eh, ñu ne bala ñuy dem fenn nañ ñëw ci yéen tàllal leen suñu loxo ngeen ñaanal ñu ba lii ñu bëgg ñu mën ci am ndam ndam loolu nag rawatina tubaa am ko ci waaye bis bu ko ci tubaa amee su demee ba ba ca ngoon ñu xaayira jiitu ca xam na ni waxtu waa ngi jot ba tax na duñ guddal ndax xam na ni sa digganteeg waxtu te it ni nga ci wàllu diine ji ak ci wàllu mbokk gi kenn umpaliwu ko kon li ñu def mooy nga ñaanal la nga yàgg fi lool ci wér Mbàkke ñu tënk ko wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala sant nañ mm-hmm. nañ sant na ci baax barkal jërëjëf kon mbooloo ñaan ngi ñaanal mun taxa yàlla ko suñu borom yàggal te mu wér ah, ak njaboot Serigne Touba gi ah, maa ngi leen di nuyu nag bu baax di leen sant yow soxna faam ak soxna Bintu Diop ndaxte bi ma leen bi ma sëriñ maam góor booleeg yéen ba nëga ngeen ànd yéen ñëpp def benn groupement boo xam ne nii xëy na mat na parce que fukki maire ak juróom-ñett yoo xam ne côté bi la dëkk booba ak léegi heure bu ma leen wooyee bala ma pare ngeen ñëw ah ñi ngeen nag di ñu jàmbaare ñoo xam ne nii ku ñëw ci sa kër gi fekk la fi xam ne nii nit ku jàmbaare nga ku nangoo liggéey nga. te xam ne président Macky Sall xëy na lim li mu def ci Sénégal ñun jigéen ñoo ci ëppale ndaxte boo seetee ne boo boo bàyyee lépp lépp rek boo demee ci fajukaay rek. boo xoolee doo xale jigéen moo yore xale nga yor sa doom ba benn weer ba juróomi at boo demee doo fay loolu rek war naa tax ñun ñu jàppale ko ba su su gañee mu gën a dolleeku. damaa jàpp ne ñun ñi nga xam ne ñoo bokk léegi xayira te amuñu xayira te mënuñoo génn xayira ku ñëw xayira bi ñu fekk ku dem xayira bi ñu bari. kon tey su ñëwee taxaw fii ñu nekk fi ay yàgg élection yi des fukki fan ak nangam suñ ak suñ gëm-gëm mooy ñu fas yéene buñ ci eggee leer na ma ne seen carte yi ngeen ko may di président Macky Sall waaye ñun ñoo ko leen xayma dafa am loolu bu mag sëkk ci kaw li ñu bu ñu ko amee te leer na ma ne leen ko am parce que sëriñ moo tax a xaar yoo si boole na président Macky Sall sëriñ bi waa waaye nag moo mooy warkat bu mag bi mooy maa ngi ko xëy ndax lu tax mu nekk warkat bu mag bi ñëpp xam na ne milliard président moom milliards yooyu fay ñu ko ba Cheikh Saliou Mbacké mu tedd ba ni mu demee àjjana fay ni milliards yooyu kon bu ñu wax ko warkat bu mag moom mooy warkat bu mag di ñaan dafa dem ba nga xam ne moo doon premier homme de confiance du président moom mu xëy def li mu ko def kon kooku du exemple te kooku du wër wax kenn ko kon tey bu gën a dugg ay wóorkat ñun mu ne kon lan mooy ci xalaat ci loolu. président wax ñu ko ñaan yàgg fi loolu wér ndax suñu waajur waaye mag bu demee ba koy yëkkati ak di ko teg ñun ñëpp moom la ne ñaan kon da war a tëdd ñaax naay war a toog di ñaanal say doom. ñoom ñi nga xam ne ñoo des ci terrain bi ñu dem ba egg fa nga egg ci ay at loolu tey moo doon mission li wax ne ne président Macky Sall nag jàpp naa ne ku yor force armée yor intérieur jàpp na ne ak naat mooy bëgg a ñëw ñun ñëpp nag li di ñaan mooy di naat yàlla na naat yàlla na mage ba naat waaye suñu waa jur la ñu ko wax leen waaye nag jàpp na wax yi naat kat keneen ki ngi des xam moom bis bu amee dara ab cër ci réew mi muy soog ko bis bu amee lenn lii ñuy defal maam yi di leen sukkal di leen daamal ak seen barab yi di leen dugg siyaare la xew tuuti mu tuuti day day jamono dafa gën a du xew. Ah. tey tey tey tey yëpp maam la dajale loolu ku rafet na ne ku si wër histoire Afrique tuuti loo xew loola am xew ci ñoom ci ñooñu la bokk kon nan mu bàyyi xel moom baax a baax jëmul li fi maam yi jàng ne jëmul li fi maam yi def ci l'islam Sénégal ko li fi maam yi def. dama wax ne mooy l'islam ji fi def ci seen atum ndax ku mel ne Serigne Touba ku mel ne maam El Hadj ku moom ku mel ne maam Kounda li ñuy fii ci réew mi ñoom amatuñu l'islam bu gën a kawe kon lépp contre yooyu kooku ñoom kooku moom bu ma defee yeneen beneen barki dem rek lan la see gis ñu war ko nii muy Idrissa Seck mu wax ne dafa ñëw ci sama waajur di tuub si a ah ñun nag moom ab unité ñëwee xaw ma ñu waaye nag ki nga xam ne dem na ba ba tooñ la ko wax na ko doonoo suñu baax suñu baax ak kaw ah Sëriñ Tuubaa moom ah képp ku ko tooñ ah jàpp na ne bii lépp loo fi wut doo ko am bu yaay bi gis jéggu nag jéggal nañ ko waaye nag du demee noonu la ma ko wax nag élection yii ñu jëm fas yéene premier tour nga ñoo ñëpp jàpp benn candidat moo fi nekk di liggéey kër bii di tabax kër bii tey de boo xoolee bii ci guddi midi bi la ma woo Dakar une heure quinze minutes ak dama Dakar maanaam deux heures et demie trois heures mooy fekkaat mu Touba te loolu mu ko def pour autoroute daal nit ki soo defee lii soo demee ba egg ci lenn rek nga mën koo fayee mooy nga élection yi bu boobaa ñun fu toll ñu siggi xaaral bëgg nañ mu bokk ci liggéey man incha allah rabbi. kooku sëtëb Serigne Touba la kooku sëtëb Serigne Touba la ku ànd ak moom tey ak ëllëg